Basuma Basuma Mbare Sukononko Abidé Ibafa Dia. Philadelphie, aujourd'hui, on va un peu développer le truc. Parce que je vois que jusqu'à présent, on n'a pas compris. Jusqu'à présent, le peuple est macabre. Jusqu'à présent, quand je vois des jeunes qu'on ramasse comme ça leur corps, je sais que le peuple n'a pas compris. Jusqu'à présent, quand je vois la presse manipuler le peuple sur des dialogues, pourtant le protocole de Cap Manuel, rappelez-vous, allez dans mes lives. Ça fait deux mois, je vous ai dit que le protocole de Cap Manuel a démarré. Mais Sonko, comme d'habitude, il a catégoriquement refusé de signer ou d'écouter. Il y en a qui ont montré le contraire. Tout le monde les a écoutés. Ça, c'est patriote le protocole de Cap Manuel qui a même refusé de voir certains je vous l'avais révélé ça fait deux mois mais dommage il y a une magie qui a destitué Macky au Sénégal, cette magie-là devient le cinquième pouvoir. C'est pour ça que je vous réclame chaque jour le chiffre 5 qui peut battre le système. Il y a le pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, pouvoir de la presse et le pouvoir du clic-clac. Ça veut dire Internet parce que des pouvoirs ne nous a accompagnés sur ce combat. C'est aucun des pouvoirs ne nous a accompagnés sur ce combat. Si ce n'est la magie du clic-clac, l'Internet, si ce n'est pas l'algorithme, rien ne va faire gagner son coup. J'ai discuté avec un vieux que j'ai dit que non, les Sénégalais se battent sur l'Internet, les Sénégalais se battent. Il m'a dit que, euh, fisson, c'est l'Internet là qui a limité les dégâts. C'est l'Internet qui a limité les dégâts dans notre combat. Malgré que des fois, il y a de l'humour dans le combat, mais c'est l'Internet qui a limité nos dégâts dans le combat. Et eh! Est laissé à un muet comme Amadou Mamdiop gouverner le Sénégal, gouverner l'Afrique de l'Ouest Ou éliminer Macky Sall favoriser un coup d'État ou bien laisser Macky continuer sans Ousmane Sonko ni Bassirou Diomaye Faye ni Cheikh Tidiane Ousmane Sonko il a refusé de négocier il a refusé de dialoguer maintenant il va subir subir les foudres du système car le peuple est encore incompris. Le peuple n'a pas encore compris. Le peuple n'est pas encore au rendez-vous politique. Parole de Sarkozy. L'Afrique est mal rentrée dans l'histoire politique. Parce que l'Afrique n'a pas compris que la démocratie, ce n'est pas une chose joviale ou une chose d'humour. La démocratie, c'est que vous, entre vous, bas peuple, vous vous concentrez, vous vous regardez entre vous, vous vous dites la vérité entre vous. Mais il y a des omniscients, il y a des gens qu'on ne touche jamais dans la démocratie. C'est ça la démocratie. Là, le Sénégal va mal, le pays va mal, tout le monde va mal. Et on aura plus mal si on laisse cela se dérouler. Préparons le combat. Moi, je suis dans un combat. Je ne suis pas dans vos petites affaires. Négatif. ñu ne jal jóg Macky la ngi jal rek askan bi jógaguñu ñu ñëw wala fa tise ko ne ko jal jóob ñii dunu ay sëtu jal jóob ñi fi toogoon di wax kenn du ci sëtu jal jóob jal jóob jal jóg wala jal jóob ban la ñu war a wax ak ban moo nekk ci université yi allez ma vérifier les documents wolof du langue bu beesan ah. te yéen ci tubaab bu ñu leen andi lañ leen di jàpp di leen fen di leen nax ruutale réew mi éliminer Ousmane Sonko éliminer Bassirou Diomaye Faye Ismaïla Madior Fall il a été très clair ñoom dossier Adji Sarr bu dee bu juin deux mille vingt boobu ñoom bokk nañ ci te boobu dinañ ci amnistie seen bopp mais dossier Adji rapport de la gendarmerie boo toppee ba si biir kan la épinglé Ismaïla Madior Fall nee nga dossier boobu bokk ci bu si dossier boobu bokkul rek Marème fay Sall dootul mën dugg senegal boo abadan ndax moo def complot beek yëpp Amadou Ba mi ak ñoom Moustapha Diakhaté Khadim Gadiaga ñoo rey boo yëpp ak ma ñoom Madiambal Diagne dossier bobu bokku ci amnistie bi pour lan bokkul si amnistie bi parce que état mënu ko jël en charge yoonu état nekku ça était un dossier farfelu un dossier très bidon déroulé par des civils déroulé par des gens inexpérimentés comme boy bobu sant mbay yaa ngi ne sacrifié nga sa bob maki amna luma len ma ci dossier Adji né ne na naa dossier Adji dinañ tollu fo xamné nak tek teg sur la table tej ko day jot te man waxoon na len de féministe la nay leer duma wax demb tey ma ñëw ñu may wutal var nekkuma ci loolu Adji Sarr moo am vingt un ans vingt deux ans ñu ne moo tax Sénégal bëgg xalaat bu yomb la wala être limité man nekkuma ndey si yooyu moo suma wax si loolu mais tey dama si wax ndax je me sens à parce que ça est derrière nous et ça revenir devant nous dossier Adji Sarr bokul ci amnistie bi xam ngeen lan mo taxam ak ñom Amidia ñom Ousmane Kabilin ñu ci bari dossier boobu tax ñu japp leen ñu ci bari tay dossier boobu tax ñu japp leen ray nit ñooñu xam nga tay nak fa la coow li toll Amadou Ba dañ koy sacrifier Ousmane Sonko dañ koy sacrifier basirou jomay fay dañ koy sacrifier ndax lan Cheikh Tidiane Dey ju gagné Habib sidou gagné dossier Adji Sarr bu ñu d'ici 1 an 2 ans buñ ko ubbeewaat Adji Sarr li ñuy jël def ko agneau du sacrifice tek ko sur la table pour neexal sénégalais joxat len leen Doliprane luma dul nangul ben sénégalais ney lèr dé maintenant ñi ko doon jappalé ci ay fenn ño xam mais buñ ko bëggé sacrifier bay fi ñom Mamour Diallo bay fi Marème ah laa foog gor yi jóg taxaw foog ñu jëlandoo ñëpp tëj ci kaso bi wala ñu baalandoo ñëpp Ismaïla Madior Fall c'est à toi de choisir yow rek ya war choisir combat bi nag fexe nañ ba yóbbu ko ci politique ba ñun ñëpp ne wooy daw ci politique bi ñu na ñu yen waa Sonko bokk leen ci foog ñu rendi leen kon xam ngeen ne Macky Sall l'a pas fait sciemment il ne l'a pas fait seul am na politiciens yi doon yuuxu wante tay bim len leen leeree ne Ousmane Sonko génnatul commencé nañu wat caravane tay ousmane Khalifa Sall tay la commencé wat activité politique am ndax titone na fakk ne dañuy baye Ousmane Sonko nee len fi fii xanaa déggu leen li ma wax Ousmane Sonko xeex japp Macky Sall bala mu ko japp mo gëna a Ousmane Sonko lañ jël def leen dolli prendre te xex bi du xex Ousmane Sonko ça dépasse largement Ousmane nee len Ousmane Sonko est trop petit pour libérer ces prisonniers. Macky Sall est trop petit pour reporter les élections. Je dama vous di xew ci protocole bépp xam que Amadou Ba France américains yi sur la table ba wan Macky Sall ne da ngay en crime yi yow la France 24 Macky Sall mi là. presse étrangère bien contre le gouvernement est da ngay France si boppam ñoo lay jaay France si boppam ñoo joxe say dossier sans la France la France 24 ne va jamais parler de toi da ngay duul tu mens sa ndey day duul sa baay day duul yow ma kii tu mens yéen ñi doon wax focus balaa nga naan balaa nga naan naam ne fa kuy dem kuy dem mooy focus boo xamul foo jëm xeexis nga war def xeexis xeex ba naaw mooy xeexus xeex xeex xeex neex naqari fa lañ jëm neex naqari fa lañ jëm éliminer Pastef nag éliminer Ousmane Sonko ñu ne ñun dañuy xeexal pour Bassirou Diomaye Faye nekkaat candidat wara pour Ousmane Sonko nekk candidat te Pastef mos na nangu financer combat mais vous ne pensez pas que le, peuple est en train de comprendre ba tax na moment par conviction les ñuy xeexee maanaam ñi nga xam ne xeex bi leneen moo leen ci andi xeex moo leen ci andi conviction Sénégal moo leen ci andi loolu c'est une minorité extrême parce que dootul ñëpp lay jaral seen bakken xeex bi man de je ne vous le cache pas pare naa lépp xam a laay xaaram yéen population gën leen dëggu xool coow lu Amadou maam Diop tëb Macky Sall tëb te yéen Amadou maam Diop bi yéen gars yi ñu ngi leen di jox un problème de tey benn nga dem kilifa wax na ma ko est-ce que Macky Sall dafa tas Sénat bi mooy li Aminata Mbengue Ndiaye jiite woon est-ce que loolu dafa tas maa xam nga ne loolu moo ëpp doole assemblée national CRAES xaw ma mooy fi ñu ustaas yi nekkoon ak ñooñu CRAES CRAES moo ëpp doole assemblée nationale allez vérifier les textes Sénat moo ëpp doole assemblée national kon tey bu Macky Sall tey démissionné kan moo fi war toog <laughs> Amadou Mame Diop moo fi war toog wala ta Mbengue Ndiaye xam nga poste boobu Idrissa Seck moo fa nekkoon bi mu ne Macky Sall amoo def troisième mandat lañ fa génnee Idrissa Seck kon Idi ti boobu moo ko noppiloo tey parce que moo xam Macky deal bi loolu la woon au pire des cas bu dëkk bi jaxasoo bu ma démissionné yow nga def transition bi moo tax Idrissa Seck il était convaincu à cent pour cent un jour le président de la République moment bii nag sa Seck dafa toog ci banc de touche bi te boo ko dugalee si match bi di joxe kon on passe sur lui lenn rek moo fi des lenn moo fi sës bu ñu kenn ci ay texte CRAES moo jiitu assemblée nationale CRAES moo supérieur assemblée nationale mooy Sénat moo supérieur assemblée nationale kon Macky buy démissionné du fi teg ndey doomu Marème Faye Sall du fi teg suq Marème Faye Sall du fi teg dunguru Marème Faye Sall négatif à mois que mu tas Sénat bi non mu tas kii CRAES parce que bu njëkk Sénat la tuddoon mooy bi ko Pape Diop di jiite yooyu yëpp ay code la te di ngeen dégg coow li judduwaat bu leen kenn ne Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop ne peut ne gouverner mun mënuñoo tëb CRAES bi dugal am conseil économique environnemental je ne sais pas et quoi et loolu mooy tas affaire bi mais loolu yëpp ndax ñun dañ ko fiy xaar bàyyi suñu doomu militaire yi foog ñu xam lu ñu bëgg li ma leen waxoon laa waxaat tey leer na leen ne tey mënuñu fi génne Macky Sall jël Ousmane Sonko yóbbu ko pale leer na leen ñun ñëpp leer nañu suñu diggante ak suñu borom xam nañ ne kenn mënu fi jëlee Macky dem génne usmaan Sonko kap man yoolu yóbbu ko pale munta ne kon borom fetal yi ñëpp di daw pour lan ñuy daw borom fetel yi tay militaire yi tey jiite pour lan politiciens yëpp di yuuxu yalla bu ñu dal yalla bu ñu dal yalla bu ñu dal déedéet pour lan yalla bu ñu dal té ñom ñu jang comme yeen am bac école yi ngeen amé bac les mêmes professeurs jangal ñu foog ñu xam li ñu bëgg de moment bi coup d'état moy li gën sedd ci ñun patriote yi coup d'état la la moy li gën a ci ñun coup d'état moy li gën sedd ci ñun xam nga lan mo tax coup d'état sedd ci ñun xamu lan armée nu muy

mooy Bassirou Diomaye fay bokkul kooku moom foog ñu nangu ko dee mel ñu ñun ñëpp kaso bi am na ñu bëri ñoo xam mun ñu génn parce que du ñu bokk ci amnistie bi dossier bële lañ leen tëjee Oscar voilà du sax dossier Adji Sarr dossier Oscar la ndax si la ñu reyee ñoom Dija Badji ak Fulbert Samb te Dija Badji Macky Sall mi leen convoqué ñu ñëw mu rey leen moom dafa jël affaire bi moom léegi moom dafa gëm ay fenam ba gëm à cent pour cent que Ousmane Sonko mo len ray ba paré nak défar ay dossier fàtte ne général Tine moment yi bu réew mi demul coup d'état ba tay ni bu réew mi dugul tay ci guuta ba tay général Tine ci tak tankam dé sino bi heure gaay yi faxas nañu waji bu yag laaj len dem ci goudi ñan ñoo nekkoon conseil de conseil de sécurité ya de nouvelle tête 95% de musulmans ngeen dem ba dans l'armée ay catholique ñoy tok réunion pour stabiliser dëgg bi ay gurumèt au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit amen mariamu der bu ñuul la buñ démé ba même dans l'autorité dans la haute hiérarchie étatique c'est les chrétiens qui osent dire stop allahu akbar té ñu né Sénégal dëkku sëñ Bamba la dëkku limaamu la dëkku xawma kan la ñun ñëpp ñu ne ay julit lañ di seetaan lii di daw ñu ne non dañuy xaar focus jëmmi sëñ Bamba laa leen di wax tey doo dem bu ñu xeexul ak Macky bu ñu xeexul ak système bi du ñu dem kilifa yu gën a mag gis nga ñi nga xam ne ñooy sax état seen problème mooy lan jeu bi leen Sonko joué ça a la tête de beaucoup c'est que jeu bi Sonko joué moo yàq gravement xam nga moment yéen ñun ñu ngi noo maki Macky moo def lu ko neex. Macky Sall moo reporté élection yi waaw si ñun waaw mais en profondeur dem leen dañ leen naan lu yàqu ci dëkk bi Sonko ko yàq tey ndax tey Bassirou Diomaye Faye bi mu ñu àndul teg loolu moo faussé tey kullu fadrin lu waay calculé woon en deux mille vingt quatre tu vois le faussé ndax lan Bassirou Diomaye Faye kon Sonko politique la goon def wala révolution mais révolution la Sonko def tey mag ñii maam yu màgget yi feeñ yëpp ci dialogue bi ñan la est-ce que ñun xamoon nañ ne maam yi nii la ñu mel déedéet mais yéen tey jeunesse bi lépp a leen leer problème bi problème bi lool Sonko day mun jaloge moom amoon na ay élu pourvoi en cassation bi mu dugal ko gars yi bàyyi ko moom mu génn mu dialoguer Bassirou Diomaye Faye xaar wa ila moom day perte Bassirou Diomaye fay day perte dinañ leen fi falal président boo xam ne du ñu neex wa ilaa armée Macky Sall daw génn réew mi mbaa ñu dóor ko bal mu dee man Macky na dee man shekh Anta Diop ah benn charte Cheikh Anta Diop li mu waxoon amul benn xalif général bu ko wax mooñ ne quatrième président bi mooy njëkk reporter élection quatrième président bi moo fi gën a tuur deret quatrième président bi jógeem fii ragal naa day daw mbaa ñu ray ko Cheikh Anta Diop ba ko fi waxoon de te li mu waxoon yëpp am na leen rek a ci des jógewu Macky Sall fii kañ la Macky Sall di fi jóge ak ban façon la fi jógee dem dëmma gëm waxi Cheikh Anta Diop ba tax ma moon monte nganta mouvement panafricaniste mouvement Kémit Diop moo tax tey ma commencement man leen Jal Diop wala Jal Diop ban lañ ci war a wax boobu live spécial la Jal Diop wala Jal Diop mais ñun tey Sénégal dëkk yëpp am mouvement kémitisme bi mooy africain mooy lan der bu ñuul wax dëgg démb amul benn africain ku ñëw sol yëfu africain taxaw wax ak Macky Sall wax ko dëgg amul église bi kese te moom sax bi mu ñëwee tubaabeewul démb église bi kese ko wax dëgg wala ana ñun suñuy dignité maam Afrique bu njëkk boo daan violé mais dañuy dagg say koy ak say xuur sànni dëkku naar moom nga gisoon ñuy tàpp góor dañ lay séquestré nga def deful mais dañ lay rendi parce que t'es plus humain Si tu es plus aimé, on doit te sortir de la société. Donc c'est africain, c'est pas religieux. ay dag loxo yëpp fii la ko diine fekk Afrika la ko fekk man mais léegi lan mo andi bakar banal astaghfirullah mo andi bakar banal ak je vais aller me confesser mo andi bakar banal moo tax man len tay man en tant qu'Africain, tay manque de dignité tay buma ma gis tey ci religion ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee suñuy kilifa diine tey buñ li ñu def si magistèru Macky Sall bu ñu taxee wax Macky di wax nga séexlu leen yow sax yow da ngay séexlu yow yow da ngay séexlu nekk ci diine ji man dama séexlu waaw yow da ngay seexlu sax yow ne musulman nga moo ñu commencé dal da ngay séexlu na yow musulman nga boo nekkee tey senegal di woote woo dina ñëw xumbal ñu suñu maam ñu ngi biir Ziguinchor toog ni Sonko muñal ray Macky Sall moy solution bi ma ngi wax di waxaat armée bu meuna jël pouvoir man je préfère partir avec mes frères d'armes armée bu meuna jël pouvoir la len wax nak comme Moussa Fall day soppeeku yàlla na la yàlla jëpp nga soppeeku deugal ñu nday Macky dóor ko bal affaire bi jeex nga xamna naa ne capable sinon yow lay sacrifier général Sen kii yéen lay sacrifier bu fekkee yët naa Moussa Fall bi ñu xamoon moo nekk tey général am na si génnew la si yàgg nañu xam ne réew mi yàgg naa ko live lu loxo def loxo mën na koo dindi du ma dugg ci wax ji lu loxo def loxo mën na koo dindi lu loxo def loxo mën na koo dindi kon ay amnistie yi ngeen ni ci tardé ci débat yi Sonko bokk na ci bokk ci on s'en lu loxo def loxo mën na koo dindi xam nga lan la loxo war lan la jëmm war def nag lan la physique war def loo xam ne physique du ko génnee ndax physique gu peuple bu 17 millions d' habitants même pas 30 000 policiers et gendarmes ñu bëgg ñu défier ñun 17 millions déedéet ñi dañuy jàkkaarloo ñoom ah. le combat là va être très très très très sanglant maa leen ko wax tey. parce que ñi buñu ñu signé amnesty bi bu jàllee assemblée rek bo leen xeyé semaine prochaine di ngeen dégg loi yo xam ci Ousmane Sonko ak procès Bassirou Diomaye Faye da ngeen ci jot procès Bassirou Diomaye Faye ni oh. bu bi compris motax may dégg ay focus ak paras rien de rien le peuple ne l'a compris te c'est dommage que dañ leen di dóor doli prendre bàyyiwaat eferal gan bàyyiwaat defal gan wat mais bi pas ça sera très fatal maam Diop nag bu fi naree toog coup d'état mooy am basiru gagné na nungu nañu réew mi téye lan moo ci des fen buy defar moo gën dëgg bu yàqu noo fen buy defar moo gën dëgg buy yàq oui ou mooy ñun senegal ci lañ ñu yar ci la ñu màgg tey nag dëgg buy defar moo jot de te jeunesse bi sëriñ bi nee na dégguñu ko de cette jeunesse là dégguñu sëriñ bi nee xam nga cette jeunesse lu ñu dégg yàlla nee na ñu ne la ah, lan la mais ne leen sëriñ bi nee na ah, ah, ah, waay waay pa booy noonu la ñu kenn mun si dara moo tax yéen jeunesse bi chaque life dama leen koy wax yéen la di ngeen ñu létt mbaa ngeen firiñu toog di saaga paa yi c'est trop facile c'est trop lu xew ci àdduna jeune yaa ko def yéen yéen a yor karaw bu ñuul yéen a soxla tekki ci àdduna yéen a soxla développement ci àdduna yéen la yàlla soxla yéen la seytaane soxla yéen la réew mi soxla yéen nag yéen xam na boo yéen la c'est la jeunesse ñun suñu wàllu wéy naa de man senegal defar naa fa ndeyam ay doom ba samay doom commencé am doom kon yéen eh, eh, booy bébé yéen sama doom yi eh, yéen laay waxal de saa yi ma xeex ba tey nii moment yi même problème mu dox dam koy am sama ndigg bi gis ngeen ni ma weexee nii du ma nelaw ba pare tey ba tey mag ñaay jóg di leen xeexal déedéet yéen la jeunesse eh yéen ñi am ba 16 ans laay waxal yéen ñi am saison di def BFM ren eh boo leen defee ENSAWA da nga ni nekk nday ay sous-officier non yéen laay waxal yéen mais bébé yéen laay waxal le continent waxuma leen le pays le continent ça vous appartient màggal leen seeni maam gëm seeni maam jàng lan mooy seen tradition yëfu naafiq yi mag ñi nekkee yéen doo leen si dugg mag ñëpp ay naafiq leen gis nga leen dundee nañu islam yàgg nañ lekk ci islam xam nañu nu ñuy ruutalee xam nañ nu ñuy ràmbaajee xam ne nu ñuy kattee xam nañ nu ñu biiralee yéen nag nekku leen ci loolu dem leen ni ko ñaan yéen la jeunesse léttu leen ñu maa ngeen ñu firiñu li laay war a suuli jël leen seen réew imposé fal président parce que nu mu mënti demee moment bi ci mer la ñuy falee président liñ daloon si Macky Sall ñuy dalaat bëgg ñun ñëpp gëm Ablaye Wade ak Macky complot góor jigeen ñu ñëw juge yëpp encaissé ñi ci amone jom gis nga dañuy noppi parce que sont une minorité Macky Sall nekul peuple bi ko fal de nekul peuple bi ko fal négatif mer ñak xam fu ñu jëm moko fal mais bi pa ñu xam fu ñu jëm ngeen ne do leen fa dem ba paré yeen ñu bëgg leen ko imposer ko war dem ba 2034 pour présenter wu di ngeen ko nangu Bassirou Diomaye Faye ñu effacer ko est-ce que yeen di ngeen nangu lolu eh xeex xeexation xeexamaa xeexare ñun Sénégal nous, mouvement qui est eh le mouvement est gëm dignité gëm ne dignité C'est dignité c'est mo gën entretien Je entretien qu'est-ce que tu ramènes à notre société Je ma dignité vaut plus que votre entreprise andi te fu je liggéey fa ndax ragalu liggéey man xeex xeex Macky Sall faluñu ko amul kenn kuy regretter ñun ñëpp a meroon Moustapha Niass gagné Moustapha Niass mooy loolu dëmm la Macky Sall li mu jox tegoon ci table bi moo gën a bëri mooy li Amadou Ba teg tey te xam ne mënul nekk mais Amadou Ba woo Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye ñoom ñett ñëpp la ñuy boole tër rendindoo benn tabaski bu ñu xeexulee Amadou Ba nag yàlla nañ ko rendi mais Ousmane Sonko wala Basirou Diomaye Faye par force candidat day dem parce que Sonko li ngeen bëgg Sonko nek candidat Basirou, Tokhar ça n'aura pas lieu Ousmane Sonko a dit non net, net, stop c'est négatif maintenant même il ne reçoit plus il ne discute plus légui nak il va subir les foudres du STEM. nous les anti stem on doit sortir Ousmane Sonko de là où il est quel que soit le prix à payer quel que soit le nombre de morts quel que soit les jours quelque soit paralysé bu ñuy paralysé nday réew mi moment yi da ko war a jël avant le 2 avril Ousmane Sonko génn balaa procès Bassirou Diomaye Faye bi di ubbeeku basuma basuma mbare su ko non ko Abidjan Iba Famale mouvement Grand Afrique Kemit Diop Cheikh Anta Diop